Réumi 24 TV. dal leen ak jàmm ci xibaar euh, mardi 4 octobre mu mel ne jamono yi biir réew mi ak bitim réew yëpp li ñuy waxtaan rek mooy liste électorale yi nga xam ne rek jamono yi rek dañ cee génn ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko beneen bi ci topp rek mooy euh, fiche parrainage bi nga xam ne rek jamono yi daal dinañ ko koy gantal mu mel ne ay avocat jamono yi rek daal dinañu def ab recours ca euh, cour suprême waaye it ca tribunal bu Ziguinchor kon jamono yi ñu bari ci patriotes yi ñu ngi am yaakaar bu baax que ne ñu état bu li ñu bëgg nii du mën a nekk ndax amuñu fenn rek fu ñu mën a sukkandiku boobu pour daal di génne Ousmane Sonko ci liste électorale yi loolee sax waral rek ba ñu bari ña ngay waajal pour euh, parrainage yi nga xam jamono yi nag ña ngay wax ne rek ne ñëpp tey seen carte électeur rek ngir rek bu ñu déggee ordre yi nga xam ne rek waa Pastef joxe nañ ko ñu door rek mën a seen euh, parrain kon bokk la euh, Sénégal Ousmane Sonko jamono yi moom rek moom la ñëpp di xaar rek mu daal di génn ca prison si bi xotaan boobu rek waaye ñu daal koy commencé ay parrainage ndax rek candidat du peuple la askan bi wóolu moom la bëgg réew kon bokk bu ñu demee rek bañee fii kenn ko jox jox ko ñeneen kon bokk dafay daal di doy waar ñu bari rek jamono yi li ñu bëgg daal ñu daal jox Ousmane Sonko fii siem kon avocat mi jamono yi moom ñi ngi xaar rek ñu daal di euh, li nga xam ne rek mooy ndam jox ko Ousmane Sonko ngir mu mën a participer ci présidentielle 2024